yëkkati naa taal wu tëw a tàkk day boor bu ne lañ koy wuppee waaye réew mu nar a tàkk wax rek moo ca mën a andi saafara tribune yéen kaay ne ma fa réewum Sénégal jëm saa si tembe day neexul diggante Macky Sall ak opposition ba nag jongante seen biir mënta ñàkk faw am ku wax bu nu ko kaay bi ne ma làmbaay dina ñaaw de ndax opposition bi na geetaru nañu ba dëgër fas yéene nag dal ci kaw président Macky Sall waaye tam président ma Sall ki gaayam geetaru nañ ba dëgër ngir ku dal seen kaw ñu bëmax la ku cay gaañu mbaadu doon askan wi tribune yéen kaay ne ma en tout cas mënta ñàkk jaamaarloo gi nga xam ne nar naa am ci réew mi diggante opposition ak nguur gi ñaari camp yépp nag yéen i kaay média bi ne ma ku ne ngi fëgg sa dënn nag wax ne maa ngi xaar sama morom te fas yéene nag dal ci kawam tribune ne ma coow li coow li nguur gi la de coow li coow li ma ne la nguuru Sénégal la ndax ñoom ci boppam ñoo fas yéene jagat-jagatee réew mi yóbbu nag ci guuta goo xam ni kenn xamul fan lay daal di teeree ndax nguur Sénégal tànk yi ñu daal di jël ngir fas yéene defanteeg opposition bi tànk yi ñu daal di jël ngir bëgg a seeyal ay parti politique ak i politique tànk yi ñu daal di jël ngir fas yéene nag andi ay gàllankoor ci yenn ci parti politique ak i coalition fas yéene nag ñenn ñi nag ngir xañ leen ay élection lii nag yoonu guuta dong la mën a andil réew mi du leneen réew mi quotidien ne ma moo taxit le 17 bii yeewi askan wi day fas nañu yéene wane seen doole waa bennoo bokk yaakaar ne du fi amee lu ko mooy daañu dal seen kaw l'enquête quotidien ne ma laataa lool de gaa yaa ngi xeexee làmmiñ yeewi askan wi ta taseeg taskatu xibaar yi Déthié Fall ne suñu coalition bi mënuñu bàyyi Macky Sall mënuñu tëñëx xee saa su ne di ñu teg ay naqarte mënuñu koo faj papa Mao Diouf nañu ni def nañ waaye nag leeral dong moo ñu tax a jug Yankhoba Diattara xam le ni lu ñu teg benn rek daa ñu teg fukk lu ñu taxawal laan la daa ñu ko gupp lee fa yéene kaay na ma yeewi askan wi nag fas nañ yéene nag ndënd guñ leen tegal ñu daal di koy teggi marché rek jongante ak Macky Sall mënta ñàkk ci mim réew Déthié Fall ne bëgg ak bañ a ci yem suñu manifestation di 7 juin gii daañu ko amal yeewi askan wi dina bokk ci yële élection mu neex ak mu naqari lay doon lu ko mooy laañal ay élection lu tëggu ci réewum Sénégal Macky Sall nag gënuñoo ëpp fit ëpp ñu tàggatu tey duñu ragal Déthié wax de Cheikh Tidiane yum ne waaye banki loxo sax dafee mënta nekk ndax saa buñ ko defee Macky Sall nag dina soppi constitution bi def leneen loo xam ne bëgguñu ko woon doonu buur ci réew mi critique yéen kaay ne loo ci manti déggit yeewi askan bi ci boppam ña ngay radicaliser wu de fas nag dal ci kaw président Macky Sall ak ki nguuram manifeste gi nag fas yéene am ci Dakar ak ci sigi alerte moo ne day ANACIM nee na waxtu woowu nag ay taw yu miti nar naa am ci réew mi Déthié Fall ne ko ndokk taw ak naaj lan ci yem mbaa sax neige kenn mënuñoo teree génn la di seet bii jàmmaarloo ak Macky Sall Sud Quotidien ma yeewi askan bi la ñu naral président Macky Sall di seet ñun duñ ci teggi dërëm te nag coow li coow li yéene kaay bi ne ma moom mooy législative yi de samp laaj ci yooyu la législative day lu war la ci réew mi Sud Quotidien ne ma législative la yoo xam ne risque yi daal dinañuy bari lool ci réew mi ndax bari nañ coalition ak itam parti yoo xam ne daal dinañuy mer ba futt ci yile élection législative ndax élection yi dina am ci jàmm laaj woo samp na l'observateur ne loo ci manti dégg direction a yomb ci réew mi ndax nag waa direction générale des élections dañoo yeewi photo tête de liste di Ousmane Sonko du ca nekk Vox Populi ne ma moo tax nag waa Yewwi Askan Wi mu xaatimuñu la leen xibaaroon ne photo Ousmane Sonko du ca nekk L'Observateur ne ma te lool nag direction générale des élections def xamal ko it waa Yewwi Askan Wi boo moytuwul nag seenu ñàkk bokk ci élection yi tey lay gën a dëggu Déthié Fall sax dafa jaare fa porter plainte Vox Populi ne ma Déthié Fall ci boppam nee na liste nationale bu Yewwi Askan Wi bokkul ci yile élection ci boppam moo dul am ci réew mi te sax coow li coow li mooy le 17 bii ci mbedd mi lañ koy xeexee muy Ndakaaru di Sigicoor ndaw Benno Bokk Yaakaar yaakaar it fas yéene xeex ak waa yeewi askan wi mu di Yankhoba Diattara Moussa Sow ak ñenu àndal fas yéene nag dal ci kaw Ousmane Sonko ki gaayam tribune yéene kaay ne ma ku waxul di nga atte de ku waxul ci boppam di nga atte moo taxit Alioune Tine ci yéene kaay dee média mi nga xam le ni xumbaa yeeg mu mbaay ci bitti ci boppam la ñu a dakkal ngir nag jàmm ak dal mën a am ci réew mi lu ko mooy nag tëkkunte gii du jur jàmm ci réewum Sénégal tribune ne ma loo fi mënti déggit mim réew kumba am nday ak kumba amul nday moo fi am xoolal Ahmed Suzanne Camara kàddu yu ñaaw yi nga xam ne yëkkati na ko ci Ousmane Sonko terewul Amadou Bara Dolly ma nga xam ni jar na ko Macky Sall ma nga ca kaso ba Ahmed Suzanne Camara ci l'observateur ne la ma wax ci Ousmane Sonko weddiwu ma ci lenn te it ñaawlu ma ci lenn moom Ousmane Sonko xam na la ma ko wax ndax defaraat na bu baax ak kaaraangeem tribune yéene kaay ne ma Boubacar Camara de dafa mel ni lii la njortu ba tax na na xaatim na ak bataaxal daal di koy jébbal président Macky Sall direct news ne ma Boubacar Camara day xamal na président Macky Sall ne ko tension politique bi day mi ngi yéegandi ci réewum Sénégal te mësta deltu ginnaaw nag bu dee foog nga loolu yow président Macky Sall gaa yi jàpp ni da nga salañ-salañee seenu droit gaa yi jàpp ne nag da nga leen tënk ba duñ bokk ci élection yi ñii ñoo am naqar te ñoo ñee boo maytuwul ñoo fas yéene génn ci mbedd mi nag wane seenu naqar laataa ñu jaamaarloo ak yow ci mbañ gàcce yi yow président de la république Macky Sall ndax nag ay élection yu jaar yoon man nañ jàpp nag ab liste daal di koy écarté xam leen ni nag ay parrain am ci boppam ñoo matul wala it ay parrain am ñoo baaxul waxtu woowu nag ñu gis ay pièces d'identité yoo xam ne wane na ni yéen ñi yéen a juum yéen nekkul ci dëgg te moo ne ak coalition leen du ñu bokk ci l'élection ndax itam parrainage bi ci boppam moo leen daal di tànc waxtu woo xam ne seen i pièces wane na ne mën nañ bokk ci l'élection ñooñee foo jëm ak ñoom président de la république Macky Sall yow de la république tey jii nii réew mi nag yegg na foo xam ne ak acteur politique yi dellu gannaaw day mënta amati président de la république Macky Sall jëfal te nga def ngir li gën ci réew mi tribune yéen kaay ne ma Boubacar Camara day xamal na président Macky Sall ne ko saa si réew mi mi ngi jax-jax goo xam ne lu ne rek lu ne laal la mën naa taal réew mi waxtu woowu 24 heures yéen kaay xamal réew mi ci boppam moo nekk cib commandé moom réewum Sénégal moo sonn ba mi fépp la mu jëm ci élection mu jëm ci ak présidentielle mu jëm nag ci yoon goo xam ne saa su ne ñu ngi koy daal di caxat caxatee ba du def liggéey waaye tam débat boo xam ne ci réewum Sénégal day maar day taali ku ne nag ma nga yekk sa morom musiba moo ne day Mamadou Badiane gaynde ci tribune yéene kaay ma ngay xam ne nag coowul investiture ci yeewi askan wi ba tey dakkagul de moom Mamadou Badiane daal di xam ne ni caxat caxatee gi ñu def grand parti ci biir yeewi askan wi Ababacar Sall Mamadou Badiane ne yeewi askan wi day taxaw pur ak Pastef boo ko génnee daanaka gaa yi cër gi bariwul moo taxit ñoom ci boppam waa grand parti ñeent dong la ñu def ci liste yi loolee nag ñàkk warmal la ak ñàkk jox cër grand parti boobee terewul nag Mamadou ne ba tey dañuy des di wéy di nekk ci biir yeewi askan wi booba moom l'observateur ne ma président Macky Sall day sàll ngaari lam tooro ma ngay doxal rek ma ngay daal di nag gën a jàppale lay gën a taxawal Afrique ci kanamu àddina Macky Sall na gën a am taxawaay ci terrorisme critique yéen kaay ne ma coowal l'hôpital ba ca Tiwaawoon day jeexagul ak bébé fa faatu njiital service bu maintenance bu l'hôpital ba day daal di nañ koy jàpp booba day guute yi dakkul ci réewum Sénégal réew mi ko dañee daal di may xamal ne am nag waay goo xam ne dafa daal di rendi boppam daal di faatu ca Kumpentum kii ñu jël ko liggéey benn fan mu daal di sàcc ñetti millions l'observateur ne ma ab xale buy def CM2 moo daal di jam moroomam mu faatu ca Kounoune libération yéen kaay ne ma kan santoon di liggéeyub gendarmerie bu Koungheul dafa sàcc xaalis ba ba jàpp nañ ko tribune ma waaye njombeli waa ji waa jii nga xam ne dafa dem ca daaru salaam ci xabru ab wàlliwu bu mag daal di ubbu koofar foor ba daal di fay sàcc junni ak fanweer ak juróom lum ca jublu yàlla rek xam yendu leen a jàmm mbokk taane <laughs> tu n'es pas sérieux demi finale coupe du Sénégal loolu euh, tey jii si mercredi la Casa Sport wala ñu ngi xaar mu def doublé waaw nag mi nga xam ne moo jël le championnat euh, bu Sénégal kon tey jii nag la ak Agel bu Rufisque foofu ca stade bu Aline Sitoé Diatta loolu nag 16h jotee lay doon Casa Sport nag mbébétam mooy mu def double bi champion du Sénégal ak coupe Sénégal bi nga xam ne sax moom mile ci at mi moom moo ko jël waaye nag moo ngi dajeek équipe bi nga xam ne mooy AGEL bu Rufisque ci quart de finale gi woon na boo xam bu baax a baax ndaxte dafa éliminé woon équipe bu Teungueth FC bi nag 16 ba tey foofu ci stade Ibrahima Boye dina doon ci diggante Lusitana nekk ci national 2 bi moo fas waa Linguère bu Saint-Louis junior yi nag jàppal ne kon finale gi dina dox ci diggante génération foot ak jàmbaar ñaari équipe yi. ñoom ñoo éliminé respectivement Dakar Sacré-Cœur ak USC bu Saint-Louis benn bal ci dara kada yi nag kon demi-finale bu mujj bi ñoo koy amal sax waxtu yi foofu ci stade bu Alassane Djigo ci diggante Oslo FA ak Almami bu Saint-Louis ku ci am ndam nag di nga laale ak Génération Foot mi nga xam ne moo daan ca demi-finale bu équipe bu Guelwaar juróom-ñetti bal ci dara. ñu euh, waxtaan Ligue des Nations résultat quatrième journée yi euh, loolee euh, démb ci ngoon. waaw démb nag la ñu ndax képp lu jëm ci ñeenteelu bëccëg ci Ligue des Nations waaye nag ci groupe 3 bi ñu gis ne ni Allemagne moom dafa daan daan yu métti sax a ñu di waa Italie juróomi ball ci ñaar Angleterre nag daanaka moom tamit dafa daanu daan yu métti foofu ci dëkkam ci digganteem ak Hongrie ñeenti ball ci dara groupe 4 bi nag Pays-Bas. moo daan pays de Galles ñett ci ñaar Pologne moom dafa ñàkk ci kanamu Belgique benn bal ci dara kon di fàttali nag lu jëm ci wàllu mondial barrage intercontinentaux yi kon waxtu wi xam nañ nag équipe yi nga xam ne ñoo fas yéene teew kon foofu ca Qatar ndaxte demb Costa Rica moom moo daan Nouvelle-Zélande benn bal ci dara kon Costa Rica moom moo décroché nag 32e ticket bi nga xam ne mooy complété équipe yi fas yéene teew foofu ca euh, Qatar Costa Rica kon moom ci groupe E bi dina ci bokk ak euh, ñu di waa Espagne Allemagne ak Japon coupe du monde bi nag di fàttali di fàttali ni dañ ko amal kon ni ki 21 novembre jàpp 18 décembre foofu ca euh, Qatar. boxe gala de la ligue de Dakar dañu koy waajal ngir nag jëm ci wàccaay JO euh, bu Dakar 2026. waaw mooy Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ne Dakar moo ko fas yéene nag dalloo ci atum 2026 loolu moo sax moo tax ba. ligue bu ndakaaru doon amal nag seen open en tout cas profité nañ ci nag di sàkku rek ngir nag ñu gën leen a nag dooleel waaye nag li ni mel tamit day permettre ñu nag liggéey base bi nga xam ne Sénégal bu eggee ci boobule a nekk président régional mooy fexe ba euh, booster box bi maanaam yóbbu box bi fu gën a kawe fu mu nekk nii parce que tey boxe bi soo xoolee toog na deux ans presque doxalul ligue bi doxalul kon tey ligue bi tey la def gala de lancement am pour club yëpp xam na ni war nañu tàmbali liggéey bi ci base bi te xam na ni liggéey baa ngi doog a door na club yëpp delluwaat ci base bi liggéey te suñu defee loolu dina tax suñu boxe bi suba ñu mën a concurrent au niveau international parce que tey soo xoolee ñu ngi waajal ñu ngi waajal aux euh, euh, Jeux olympiques deux mille vingt six te su ñu nee deux mille euh, Jeux olympiques deux mille vingt petite catégorie bi la tey soo xoolee ñun mun naa wax si box petite catégorie bi la ñu gën a miser ak boxe féminin bi parce que boobu tey moo xaw a faible au Sénégal kon tey pour ñu développer il faut ñu am ay mobile il faut ñu am matériel tamit qu'il le faut parce que soo nee petite catégorie nga ne matériel parce que petite catégorie dafa soxla matériel sans matériel munoo yóbbu fenn petite catégorie. ayca waaw ah, ñu wax ci basketball ah. jëm ci basketball ah. waaw ah, éliminatoire mondial 2023 Gorgui Sy Dieng ak euh, Clé Clévin. Ah, foofu laa yem <laughs> parmi les dix huit lions sélectionnés. <laughs> waaw démb nag la coach dafa doy waar quoi boo ko il faut nga ndékki ba suuf. xam nga kii naan xaw ma lan comme mathématicien nga kay yow dara war <laughs> laa jaaxal fu mu toll nii. mathématique égale deux. rek yow sama waaj yow fi nga ko jaar yow mën na de yow de waxoo Thalès waxoo Pythagore waxoo dana. weesoon naa ko loolu moom mooy sixième cinquième quatrième. waaw ah, théorème de Pythagore. <laughs> kon baax na ko a waxal si basket éliminatoire bi. jàppale nag coach bi di Boniface Ndong jot na nag fësal lissu fukk ak juróom-ñetti joueurs yi nga xam ne ñoom la ñu convoqué ngir nag ñetteelu fenêtre bu FIBA bi ñu fas yéene ko amal kon foofu ci Égypte ñu nemmee ko ci nag retour Gorgui Sy Dieng Clévin Ana ak kii di Ibrahima fay Moussa Diagne nekk ca Andor. ak Youssoupha Fall nekk ci Aswell ñoom nga xam ne daanaka beneen woy ba léegi mosuñu nag teew ci équipe bi tamit bokk nañ ci bile list ñu gis na nag kii di Ibou Dianko Badji ak Amar Silla mi nga xam ne teewoon nañ ci fenêtre bu février bi ñoom bokkuñ kon Sénégal nga xam ne moo nekk leader ci groupe D bi fas yéene ci ànd Euh, ci kanamu sax RD Congo Égypte ak Kenya ñoom dinañ nag nekk regroupement ni ki mardi prochain Sénégal nag ngir euh, bile qualification benn poñ rek la ci bëgg victoire kese ngir nag euh, permettre ko mu mën a qualifier ci ñetteelu tour bi nga xam ne kon dinañ ko amal kon ñu jàpp ne sax jàppal ne kon ñetteelu tour bi sax dinañ ko door ni ki benn fan ba ñetti fan ci weerum juillet foofu ci Alexandrie ca Égypte kon Mambay fii la ñuy dar lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram rendez-vous bi kon huit euh, dafay nekk ci quatre-vingt-neuf point sept. incha allah douze heures ak Birame Diadji. treize heures treize heures El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. suba teel ku fay ne tey soxna Fall. waaw ah, tey nag dina ñëw yaatalal bu baax baax euh, lu jëm